opéré Sénégal ak Sénégal baax eh, na comme nu ma amee nii ci VDN bi jaay ay couleur di ko exposé idée bu am solo la ci wàllu zone yi nga xam ne ay bërëb yuy faral di tilim la ñu fay sànni ay ordures wala ñu fay tuur ndox eh, baax na ñu koy saafara ci ut foofu benn fleuriste boo xam ne moom mooy nekk foofu di ko teg ay fleur di ko toppatoo. di jaayaale waa koñ bi ay fleur en même temps di leen mën a toppatool seen fleur yi ñu koy fay par weer wi dee lu mel noonu bokk na ci luy tax dëkk bi gën a rafet dëkk bi gën a set jaa ngeen jëf